salaamaaleykum maa leen siyaar leen bëggee man Modou Lo laa tudd Modou Lo c'est que Dexya jour sportif bi la quoi comme bu may góolu affaire la noonu mais samay kayit Modou Lo moo si nekk non pas bii quoi mais tur yi ñoo bokk waaw bu baax waaw fan si bu yàggee nag fan si bu yàggee waaw am na mais du bii quoi moo moom moo du yàlla mooy boole ak moom du léegi quoi man raxam laa xamante ne Ablaye du yàggee après si lan demante ba ma xam Modou xam affaire mu dem famille tamit aussi. Hmm. Hmm. yaa ci kanam jiite na dëgër. waaw non demewul noonu sax mais xam nga rek Modou moo baax rek moo ñu jaral lu nekk ci àdduna Modou bu amee bis. non du risque. façon man dama lay gis bu ma ko na sax loo si jëlee loolu yëpp xam nga di ko jar moo ko jar quoi parce que Modou nit la. Modou bu dama bu doon dem xare barki alxuraanul karim balaa ngaa jot Modou di nga laal ñu bëri avant Modou parce que Modou moo baax rek billaahi wallahi Modou dafa doon koo xamante ne nii xam nga maanaam boo ko xamul da ngay wax si moom leneen mais boo ko jigee si ngay xam kan mooy Modou loolu li li ko jar rek moo ko jar ah billaahi wallahi barki alxuraan waaw mbégte ah kontaan continuer barki alxuraan roi bi dafa amoon ñu doon taxaw naan Modou du ko laal comme ay mbër mais dafa am ñu ko moom xam nga ma moom li may def ragaluma ko ñi ko mais ñi kam moom xam nañ seen bopp Modou moo fi ne ku ko bañ da ngay dee rek barki alxuraan li may wax nag xam nga gaañu ma si internet bi Modou moo fi ne man ragaluma li may def barki alxuraan bu doon xare ak Modou bàyyi jiitu si kanam parce que Modou gor la góoraala la roi bi nit ñi doon taxaw di siisu mbëri doon wax naan Modou doo ko doon anoon ñu tey Modou mooy roi mooy king boy roi bi parcelle la yeewoo inte dix parce que alxuraan waaw kookan la a la ndax bëgg naa xam ni bëgg mais da wax kan la non wax ma ka man xaw ma ko xaw ma ko franchement parce que yow li ngay wax man leerul su may nopp boo tudd man ragaluma li may def de boo ma tuddalee tur ma wax man kan la waaw ah. kan la non yow ñi nga bëri bëri nañ fi de mais ñi ñi siisu man dan taxaw bañ siisu la kan moo daan Modou ñaari yoon Balla Gaye kese waaw moom mu ne ro moo du roi am moom ki ka daan ñaari yoon maa ko daan waaw moo ma daan d'accord moo ma daan de d'accord Balla Gaye 2 moo daan Modou Lo ñaari yoon mais man leer na ma ne buñ jàddoon nii si roxu moo doog Balla Gaye kese Modou dina dóor Balla Gaye ba Balla Gaye ñibbi géej waay parce que alxuraan moo doo ko moo doo moo doo ko dàq bëre boo gën a doon xale moo ko ëpp fit moo ko gën a ñemee na baala gee ñëw ñu ëffal leen moog moodu si rox bi fii waaw si géew bi parce que ñiy sot ñi ñi nga xamante ni dañuy sot Modou mais bu leen bàyyi woo ndax Modou Balla Gaye ak moodu kese si biir géew bi parce que yow ñun fay gis ñëpp ñu wax Modou Balla da ngay gis gaayen booy gaayen xam nga booy njaay njaay yooyu noonu gaayen seen diwlin bu bon boobu ku koy lekk na nga def oration rek baaxul de. non tooñu ma d'accord Balla daan na ma ñaari yoon mais man du ma nangu ne Balla ma man ci àdduna man Eumeu Sène Eumeu Sène Modou daka duma daan ko Balla Balla ak dama seetaan combat yi nga xool demal nga xool ñëw gaañ di daga say yaram nax lan laa gis nañ ko si télé bi gis nañ lépp si internet bi bàyyi Moodu Moodu ma wax la fii benn affaire gis nga Moodu lépp lu muy teg si diggante moom wax boromam lay nekk parce que ëllëg day ngay dugal si biir suuf xam sa moom lu koy lenn ci àdduna barki alxuraan maanaam li ma bëgg a wax mooy li jaral Balla Gaye làmb li Balla Gaye li ko jaral si làmb jaralu ko Moodu ban mystique aar sa yaram ñëw bëre kase mais yow li nga gis yow. waaw. yow mos ngaa gis mbër buy dagg yaramam di fa dugal gàllaaj Balla moo ko fi def parce que ñun gis na statut yi si dëkk bi bi mu bëreeg Modou ba pare yow gis nga ko yow mii dama bàyyi ma dafa fekk ne ko gis yow mais li ma la bëgg a xamal ba nga xamal la ko mooy bala Gaye du sama du mën mënu man bu ma nangu ne mooma si àdduna alaa yow mi diini du ma nangu loolu Modou lan gëm ba kara ñuy dee ñu nag Modou pik ak peel barki alxuraan amul lu ñu arrière billahi wallahi ama waaw na liggéey na liggéey dafa soxla Modou Lo dafa soxla Modou Lo day ñaan que Modou daanoon naka waaw waaw basi waaw basi daan na daan xale maaga na léegi Modou nag kon moom lu mu def moom kan mooy gis nga Ama Baldé Boy Niang ah rakku Balla Gaye boobu noonu ñooñ ñooy mu robi Modou te ku si Modou tee nga xam ni xale la te barki alxuraan Modou ñi muy bëreel si làmb ji ñëpp ñoo xam mag ay ëmm si ngay gis ay Balla Gaye 2 xam nga ay ñii ngi ñe si kaw ñëpp ay la de Guiers ñooñu mën nañoo jur Modou Modou xale la mais Modou non loolu du loolu du man maa koy wax no man amul lu may xalaat foofu man moo Modou daal Modou daal ku mu jël xam nga yi dinañ fexe ñu ko Modou daanee loolu rek mais Modou moom ku mu jël rek ñun ànd nañ si pour dooleel ko yokk ko xam nga jom ak fulla yàlla may ko ndam loolu kese la de amul leneen. léegi nag waaw sama mot de la fin mooy damay sant ñëpp di gërëm ñëpp xam nga man kenn rek laay sant kenn rek laay sant si ñi ànd ak Modou yëpp mën naa sant ñu bëri sax mais damay sant Papis Cegaan waaw kooku suma nit la que alxuraan waaye Baye Fall nga ko gis nii si biir géew bi muy yëngal ñu naan ni mais Baye ku baax a ngi noonu barki alxuraan papis boo ko fekkoon mu toog da nga naan non kii du papis barki alxuraanul karim billahi wallahi boo ko fekkoon ne mu toog danga nga naan kii du papis papis que nit gënu ko barki alxuraan di sant ay ñoom baaba gaa yu sonn si moodoo noonu ay Serigne Ndiaye barki alxuraan ñu sonn si moodoo ngi noonu baaba Serigne Ndiaye xam nga ak Mame Pathé di sant gaa yi kay toogal diis ak ñi V yëf ak ñi V10 gars yu sonn ci Modou am Papis laay sant parce que su nit la ma ji ngor gu mat sëkk bëgg nga génneel ma lii te yàlla rek tax ngir jëmmi Cheikh Abdoul mi ma yaakaar bëgg nga génneel ma lii nga ne nga génneel ma lii parce que Papis Baye daa baax parce que alxuraan nit gënu ko bëgg su may wax si moom sax sama xol day tooy parce que li ma la moom xam la man xam naa mais ñi xamul nag. ñooy wax ne Papis maa ngi koy sant di koy gërëm di ñaanal Modou nag couronne bu jikkoo di nuyu sama copain raxam Ablaye bu baax waaw Ablaye Ablaye laa xam nag Ablaye laa xam bu baax xam nga sama digganteek Modou foofu la jógee parce que gàlle bi buñ koy liggéey mu nekkee premier état quoi laa fi doon ñëw di ba ba miranteeg Ablaye la mel ni yàgg naa yi 2011 ans foofu la xamante bi jógee après am mu dem ba doon famille daal waaw maa lay sant di sant gars yi ñuy seetaan ñëpp di wax ne affaire yi nag yàlla suñu borom def xéewal parce que ay jeune ngeen comme ñu ah. xam nga yéen a ngi xam nga ne ci affaire yi nii man damay football tamit dama métier aussi damay def plombier am na samay diplôme tey boo ma joxoon kër bu mag dama koy installé kaw suuf te dara du si am mais ay ndaw ngeen dama leen ñaanal xam nga suñu borom yokku leen jàppale leen ba lépp loo leen bëgg si seen affaire bi rek yàlla defal leen ko xam nga yàlla defal leen ngeen xam nga affaire réussir quoi yàlla defal leen affaire yi dem ba ngeen raw ay 2S ay TFM affaire noonu parce que yéen moom ay borom baax ngeen quoi. Vision Love ak ah, ting bi parcelle lay yeewoo Modou xarañ lo roi des arènes waaye foo doy caaxaan maa ngi sant Babacar Touré ah Touré Mandik Bori wa suba la ting